leader coalition majorité présidentielle bi di waa benn bokk yaakaar war a dajaloo fi nga xam kat mooy gaaw gii ñu gis tamit waxtaan gi nag moom du lenn lu nga xam ne tànneef ki ñu war a fësal waaye ñu gis tamit loolee daal nekk na jamono joo xànkat ñëpp koy xaar ndax jamono ji kat ñoom gët yëpp ñu ngi ko daal di jébal ki nga xam mooy Macky Sall waaye nag moom nekk coalition mi nga xam ne moom la jiite depuis 2012 ba léegi ba tey ñu gisee kat ñoo war na valider feuille de route bi nga xam ne moom la ñu teg maanaam xal gu ñu xàll fii ak rek atum 2024. waaye nag jamono jii moom ñu bëri yaakaaruñ ne nag gis nañu président APR bi wala sax bu bennoo daal di ubbi ab front bu nga xam ne daal day tax rek parti bi daal di salfaañe waaye tamit loolee sax dàquñu ko ndax gisee ne daal ay jàppantam nar na am ndax candidat bu APR moom war na am sax loo xam ne kat mooy représenté loole waaye ñ gis tamit waxtaan bi nga xam ne nga war na ko amal ak ay njiitu parti loolee bu ñu deful nank rek dana daal di jur akub salfaañe kon scénario scénario bii nga xam kat moo nar am ko warta tabet kenn ndax gis seen ne anam ya nga xam ne kat la ko defee moo baaxul kon ñuy waajal présidentiel naam waaye tamit jàppantey nag moom mi ngi daal di nar a wulee ñaay ndax jeexital gu bon la ndax jeexitalu nguur la kon tamit ak ci nii mbaa ci ne war nañu ubbi waxtaan waxtaan mu nga xam ne ci ay njiitu parti la ndax gis ne kat loolu mooy ila ju dëgg kon Macky Sall war na valider tànneefam ak ñi nga xam ñoo koy allié maanaam ñi ko jàppal tànk ndax daañ ko nangum déet loolu nag moom mooy laaj bi samp waaye tamit dana fexe daal ci nii mbaa ci ne dajale waat ak njabootam daal di fexe kat nga xam ne dañoo mer ak nga xam dañoo nar a gedd mu daal leen dajale waaye buñ deful naa ngi tamit candidat yi nga xam ne kat bañ ne moom tànneef kat moom du leen jéggi ñoom naka lay def ak ñoom waaye présidentielle 2024 nag moo war na indi ak féewaloo bu metti sax boo xamee tamit dana xóot lool ba tax na sax loolee daal moo nar a xeeñ